boo gisee nag say kilifa ak say idole ku mel ne président Macky Sall nga xam ne euh, ci keppaaram lañ nekk ñu gis mu posé acte yooyu ñun tamit li ñu mën comme que posé na ko niveau national ñun tamit ñu ne ñëw suñu gox seet suñuy dëkkandoo ak suñuy am di jàmm ñu def noonu parce que daan nag dajul suuf waaye signal bi mu lancé signal boobu ñun ci liñ ko gisee ñu décoté ñu décoté ko biñ ko décoté dafa euh, liñ ci gis mooy nañ ñëw ci suñu askan ñu seet liñ am ñu bokk ak ñoom ndaxte. dañoo même bu nekkul sax Covid bi ñoo ngi nekk ci weeru euh, weeru weeru koor muy weeru dimbalante ak weeru jàppalante lii nag c'est pas la première fois peut-être tey la mais dañ koy dañ koy def dañ koy continuer def feeg yàlla moom ñu koy dimbale ñu koy ñu koy mën lu ñu am danañ ko andi ci dëkk bi ndax dëkku Sëñ Tuubaa rek mooy ñu ñor euh, président Macky Sall wax fi mu teg tànkam foofu la ñoo ngi koy encouragé di ko wax ne sénégalais yi ñu bëri ñoo ngi ànd ak moom ñi ci ëpp moom lañu àndal ñuy coow nag dañoo ñàkk pexe rek. boo gisee ba ci biir euh, teen ñi coow ci teen bi mooy ñu amul baak waaye ku am baak boo ñëwee duy euh, doo kenn du dégg seen coow kon boog ñoo koy wax ne euh, doj ci biir géej moom faale du warul faale ndox taw dafa am ñi ñoo xam ne ñoo ngi fi dañoo seet ñi koy yelloo ñu yëkk di jox leen jox nañ ko handicapé yi jox nañ leen bi ñu joxee handicapé yi jox nañ jeunesse républicain bi ñu ci bëri ay ay ay kër yu ndaw lañ yore ñi ay ay ay tailleur lañ ñi ay commerçant lañ ñu bëri xam nañ léegi Euh, liggéey bi doxatul ni mu war a doxee ñu jox ko gère biñ paree tamit monde rural bi ñi nga xam ne suñu wëral lañ mooy les quatorze communes ñu cible fa ay nit yoo xam ne soxla nañ ko parce que nag bu ñu fàtte monde rural bi ay quartier lañ ci Touba il faut ñu considérer loolu mooy communes yi nekk ci àll bi ay quartier lañ ci Touba lu laal fii rek dana laal waa monde rural bi kon boog ñoom tamit ñu jox leen appui symbolique ñu def noonu biñ paree tamit suñu dëkkandoo ak ñi nga xam ne ak am di jàmm ak xam ne yelloo nañ ko ñoom lañ ko jox di wax tamit gars yi nañu respecté mesures yi eh, masques yi nañ koy takk ndaxte feebar bi kat nekkatul caaxaan. ñun monde rural bi waa communes yi nekk autour de Touba gisuñu benn politicien gisuñu benn leader ku moom mi comme ni mu ko waxee démb am na ñu ko tuddee ay doom am na ñu ko tuddee leneen moom la ñuy gis ci màggal yi moom la ñuy gis ci football bi moom la ñuy gis ci ceet yi en tout cas fu ñu ko wooyee fu ne dina wuyu parce que ñun gisuñu kenn leader yi bëri nañ trop bëri nañ trop mais xamuñu sax ñun fu ñu dëkk balaa ñu ñuy soxla rek politique jóg ñu ñëw jikki mais moom day ñëw avant politique après politique kon lii ñu ko joxee war nañu koo jox suñu ko joxul te war ko ñu ngi ko ci sant di ko gërëm. kon tey bu dee si waatee ne dama leen di jox loo xamante ne da ngeen koy yore ci seen biir ay kër pour ngeen mën a toog téye seen njaboot. kon dafa ñëw pour dolliwaat rek ndax xam na ne jaboot ku ko téye si kër te joxoo ko dara danga koy danga koy problème waaye moom bi ñu waxee toog leen waxuñu toog leen ci loxoy kese parce que bi affaire bi commencé toog leen la ma njëkk a wax mais bi ma ne toog leen ma wax ko ay femmes ñoom ñëpp ña nga taxaw dañoo respecté li leen wax parce que xam nañ ne bu leen toog leen fa bàyyi ak loxoy kese kon li waxoon confirmé na ko Matar nag ñu dañ koy dangaa ñëw di roy suñu leader mais royul ci yow. fi mu fi mu ñu ko am solo trop trop fi ñëpp dimbalee ca Macky Sall woote fi ndimbal fi ndimbal Modou Massa tontu ci loolu doon ñun du def lu waaw du def lu war moom ñaari kilifa am ci kaw sow sëñ mu Mbacké ak sa ak Macky Sall ci cadre politique ñun bu buñ ko buñ ko wuysee ñaari cadre yëpp ñun ci waxtu bi am na solo trop jamonoy euh, jamonoy coronavirus bi nii ko ci jox ndimbal xam nga ni mas da nga ko jàpp lu baax a baax demul rek ma ñëpp demuñu ba ko ginnaaw maa lay wax ne bu ñett Macky bu amoon ñett ñu mel ci moom ci département bi kon wax nañ ko li koy dal fii lépp lépp daa amul dafa amul ñu mel ni moom rek. lii nga xam ne nag moo xew te addina bi yëpp bokk di ko dund moom fii mu nekk ci Touba dafa jóg li nga xam ne moo ko war te mu warloo ko te du ko wàcc te du ci war te warmaal ci ñëpp. moo tax mu jóg tey ngir ñi nga xam ne ni ñoo nekk biir Touba ak feneen fu dul tuubaax tey nitam nekk fa mu jóg di leen dimbali ci affaire dund bi waaye nag itam di leen dimbali ci lépp loo xam ne day arrêté feebar bi di taxit du ëgsi ci yow ci mu sensibiliser leen waxtaan ak yéen xamal leen itam waaye dimbali leen itam ci katanu yalla ak yonent bi ak borom dekk bi li lu wax coronavirus a du la traverser balay wersi bopam ndax bo raxaso rek mu xaru bo toge sa keur du la kereel te bo dajelo du ak yow te bo defut ay contact du contane te du la mëna contane kon coronavirus waxon nako rek ne ko ginnaaw waxon na la bu la fi koor gi fek waye nak bu fi woré